moo jëkk a jébbalu ci Sidi Anta asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ci kilifteefu Serigne Abo Mouhamed Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadoul Mamoun yàlla na ko fi yàlla yàggal te doole ak wéram sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Rokhaya mooy am mbégte di soññi boppam di soññi ay rakkam di soññi seex si ak taalibe yi ci bis bii nga xamante ne bii moom la seen waajur bu baax wa woote woon 1983 ñu nekk ci 2023 di ñeen fukki at ba ñu tàmbalee woote addiyee Daaru Salaam ak léegi sëriñ Cheikh Anta nag nee na ren ji jàpp nañ ko juróom benn fan ci weeru janvier ginnaaw bu mu soñee boppam ba noppi nee na mi ngi soññi seex sépp ak taalibe yëpp ak tool àllarba yëpp ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew di leen xamal ne bis boobu kat sëriñ bi nee amuñu benn bis bu toll ne moom ndax ci la ñuy yeesalaat suñuy pas-pas suñu diggante ak sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye ci la ñuy fàttaliku suñu wajur bu baax wa di sëriñ Modou Rokhaya Mbacké di ko ci ñaanal kon sëriñ bi nee na bis baa ngi noonu juróom benn fan lay doon ci weeru janvier nee na mi ngi ñaan képp koo xamante ni bii def na ci saw la nga defoon daaw nga yokk ko yàlla na yàlla yokk say tuyaaba yokk say xéwal ci àdduna ak ci àllaaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baata nga génn réew mi tey jëmbeelu.